soldaaru mhm. euh, soldaaru 14 18 seede saa ngi nii waaw mhm. Mhm. Eh, dafa am tuuma jooj dañ koo tuumal borom daarul mooti te mu bëgg koo teggi ak lu ñuy wax ci Serigne Touba lool nañ koy waxe amut bu njëkk bi mooy damay dégg ñuy wax ni soldaar si oh. Serigne Touba àndu ci woon borom daaru muuti moo joxe soldaar yi te mag ñi àndoon ak sëñ bi ànduñu ci woon loolu dem nañu ba bind ko te loolu wérut wérut kay mm-hmm. waaye Omar Koppe mooy mm-hmm. waajuru sëñ Cheikh Fati Fall mm-hmm. muy waajuru euh, Cheikh Omar Bamba Cheikh Omar Bamba dafa am ñaari wax yu daje ci moom Baye Omar Diop maamam moom la sëñ Tuubaa ko woon dafa daan ci li ma leen doon wax ni borom daaru mooy intendant bi daan yóbbu dund bi maamama dem sëñ Tuubaa boo demee neel Cerno euh, ànd ak man doy na waaye ànd ak Cerno ëpp na moom la ko waxoon bàyyi ma Ndoumbé Diagne mii jur waajuram mu jigéen. Mm-hmm. dañ koo joxoon borom daaru xelum. damay <laughs> il faut non Sénégal la mooy kan mooy. dafa ko war xam xam nga wax bu rëy boobu ci maamam la jóge woon. damay soxore yi eh, maamam. waaw ak ndaw jàpp ko mu jóge collaan. Mm-hmm. bon eh, eh, borom di ko di ko di ko di ko di ko saytuloo xeeti mbaam yeeg yooyu. Mm-hmm. te booba ceeyeen xumb na sëñ baa nga fa mu daw dem ceeyeen. ba mu demee. ñu delloosi ko. sëñ bi yónnee mu mu delluwaat sëñ bi delloosi ko mhm. bi mu ñëwee mhm. borom daaru muuti woo ko ba mu ñëw mhm. waaye man dumee nee na yoon wu njëkk bi sax dama amoon kersa <laughs> ngir gis borom daaru mu woo ko ba mu ñëw mu ni ko ma numbee li nga bëgg ñu bëggal la ko dafa nekk fii ci man ni ko ma numbee mu ni ko mbàkke mu ni ko am na ñu nekk fa sëriñ Tuubaa ñooñ du ñu jariñu ndax seenub cëre ngeeg man duñ ko jël si te du ma leen ko yët ñaari wax yooyu ci maamam la daje tuuma yi ñu tuumal sëñ Tuubaa Tuubaa tax ñu yóbbu ko ci géej gi ay kalaam yu tegul fenn borom daarul mooti nag dañuy wax ni dafa am mbirum soldaar yi mhm. noonu yi dañuy wax ni sëñ Tuubaa da doon mhm. yi moo mhm. ko jël pendant trente deux ans tàggale ko ku njabootam génne koom réewam tubaab yi dañ doon def lu ñuy tuddee dawal jàpp chef de canton yi ak chef de province yi dañ daan dugg ci tund yi dem ci tool yi fekk mbaxambaane yi di leen forcer. di leen yóbbu armée mhm. Serigne Touba. Mhm. Euh, Blaise Diagne. Mhm. moo ñëw. ak ña mu àndal fekk ko njaareem ni ko. bi ñëwee sëñ bi ni ko dañoo soxla ay soldaar. sëñ bi tontuwu leen ñu toog sëñ sëñ Basiru bind na ko. ñu bi tontuwu leen ñu génn. bi ñu génnee Blaise Mer. ni danañ jox ay soldats sinon danaa ko yóbbu. Madagascar ci mm. mm. ma li ko man li ma ci gën a jaaxal mooy. ba léegi siggiwul xool. waaw faale ci ci der bi daal foofu lay xool. léegi nag bi mu nee. Mm-hmm. bu ñu ko yóbbu bu ñu joxul soldat danañ ko yóbbu Madagascar. Mm-hmm. sëñ Modou Moustapha. Mm-hmm. ni maam Cheikh Anta nan dem Darou Mouhty. ca Baye Thierno. ñu ñëwee ñu ni euh, borom Darou ñun de danoo jaaxle ndax. tubaab yi kat laaj ñu sëñ bi ay soldaar wuyuwu leen nee nañu bu joxewut soldaar danañ ko yóbbu Madagascar mhm. dañ ko génne génnewaat mhm. borom daar wuti leen waaw waaw sëñ bi du joxe ay soldaar mhm. ndax lislaam jii mu nekk ndagam joxewut ay ay ay ay ay ay soldaar yuy jihaad di xeex ngir lislaam du jox tubaab yi ay soldaar waaye nag nun ñi nga xamante ni nun noo jekki ba mu neex lu dem jébbal ko suñu bokk noo war a doon pekkam pekk mooy noo ko war a ah. Ah. war doon bouclier bi mm-hmm. <laughs> ni leen bis sàngam dinaa ñëw njaareem mm-hmm. naa leen fekk ca penc ma mm-hmm. eh, kera bi borom daaru ci di dem ñaar téeméeri murit la àndal ba mu demee ci gàttal rek ndax temps bi dafay dafa xat waaw ah, la eh, ni ko ni ko Ablaay waxe mu leen nag bu may ñëw naa fa fekk bindkati soldaar ya mhm. ba ma egsee ca pénc ma la yem mhm. ni ana bindkat yi ñu ñëw mhm. mu bëgg a wane ni lii du mbirum taalibi rek maanaam nañ yóbbu doomi taalibe yi bàyyi sunuy doom daal di ni bindkat bi bindal Modou Moustapha Cheikh Yaaba Diop daal di yuuxu jël mbubbum sëñ Modou Moustapha ni maa koy demal mu ne ko bindal Modou Awa Balla mooy taaw borom Daaru Muxti mhm. Mhm. waaye ma di jóg Jóob Karaaceel yooxu mhm. ni may demal sëñ Modou Awa Balla mu ne ko bindal Modou Habib gannaaw sëñ Modou Awa Balla moo mag ci ak njabootam waaw bàyyi njaxat bay njaxat bàyyi ay dara jaxate waaw mu sëñ sëñ Mor jaxate mi nga xam njëkk a jàng jës bu Daarul Muxti bañ jógee Mbàkke Kajoor fanaan si muy guddi mawlud te gaa yi ñëwul kere moo jàng ab jës bu ñu def ko mawlud moo wujjil Euh, euh, sëñ Modou Abib sëñ Modou Abib mhm. sëñ bi dégg coow li mu ni ni booba fekk na sëñ Paate Amar mhm. ak sëñ Cheikh Balla ñoo sëñ bi ñoo ci biir mhm. sëñ bi ni ko demal génn xoolal ma loolee ba mu ñëwee mu ni ko euh, loolu day Ceerno borom daaru muuti de mu ni ko lu muy def mu ni ko ay soldat de lay bind sëñ bi ni ko sañ na ko de ndax mooy borom kër borom daaru bi mu egsee ci penc mi discours ba mu tëniroon sëñ Modou Moussa ak maam Cheikh Anta lool la leen waxaat ca penc ma leen nun ñii noo war joxe soldaar sëñ bi du joxe soldaar ba mu bindee ba noppi dafa ànd ak ñoom ba ca buntu penku ba mu def leen ñaari kuréel bi sëñ bi ñëwee ñaanal leen ñu xam ni ñee ñoo fay war a des ñii ñooy war a dell sëñ bi ni ku dellu si maanaam ku ku ku ku fa des am nga tawfeex mhm. desul la laaj dara mhm. ku dellu si. Mhm. loo dundaat. bénéfice bénéfice la sëñ Modou Mbodj. Mhm. daaru ma naan sëñ Cheikh Awa Balla Gaye la dëkkoon dafa daan dem ci moom. Mhm. moom dafa daan wax ni bu dee bu ko kenn jullee. doon na nettali nee na. dafa daan def ci soldaar gi bu ñu di jekkee ba guddi. muy rajo suma wàññi ko. nee na am ngeen guddi euh, seen ki leen ñëw ni ko. ooy Modou Mbodj. faut pas chanter ce soir ah. <laughs> Eh, mais dama tëdd. Mm-hmm. almaa yi song nu. Mm-hmm. nu rey ci nu lu dul jeex. Mm-hmm. waaye nee na ci ëllëg si ba waxtu mu ne ooy Modou Mbodj <laughs> ah, ci de. nga xamante ni. wallaay moom na ca ñooña. Baye Balla Baye Balla Gaye Mbarakan ak sëñ Béyti Diop. Eh, nekk nañu Baye Omar Baye Omar bu Italie. sëñ Béyti moo jur waajuram mu jigéen soxna May. nekk nañu Marseille. Mhm. gàmmu ñëw ñuy kuréel. Mhm. nekk ci taaxum kaw étage. Mhm. ñuy jàng. ca guerre ba tey wa de. Euh, dañoo dem ba Maroc ñu jënd ay sikaara mooy sikaara léegi mooy comme lii kaay euh, euh, kii wala wala moxtu. boole ko ak jënd ay marakiis yónnee ko borom daaru muuti addiya ba mu bind ab lettre yónnee leen ko. dañoo ne Marseille. guddi gàmmu. di yëkkati. Euh, rahiya jekki ba yàgg rek am ku li sëñ Tuubaa ngoog daal di jaal ci fenêtre bi rek wéy akbar ñu tiit defe ni faatu na nee bi ñu wàccee ci suuf dañ ko fekk muy daw di song tabax bi di ko dóor ay dañ te moom bi mu ne sëñ Tuubaa ngoog jaar ci fenêtre bi rek dafa nañ ni faatu na kon euh, dafa am sax ñuy wax ni sëriñ euh, moom la borom daaru muti daan saytuloo salaatuntu najji naa ji ca ca ca Mbàkke Bari ca Jolof mm-hmm. Euh, moom dañu woon ay ay ay euh, dongom du ko joxee soldaar mhm. bi borom daaru waxee loolu ba moo taxoon ñu jël ko def ko résidence surveillée mhm. euh, Tiwaawoon waaye mbir ma demewul noonu sëñ Samba su Diop maa jëlee ci sëñ Cheikh Diop ab sëtëm. Mhm. sëñ Samba si Diop la taxoon ñu def ko si résidence surveillée. Mhm. dafa am. Mhm. gànjool gànjool bu fa ñëwoon nekk fa mu wóolu ko jox ko dëkk ba mu fay lemp ba lekk ko. ñu jël ko indi ko résidence surveillée euh, euh, euh, Tiwaawoon. Cheikh Moustapha Al Karim moo jógee Touba ñëw wax ñu bàyyi ko. kon borom daaru muti ay responsabilité am la jël. loolee mu leen wax sëñ Touba. ndax booba Blaise dem na ba sës. bu ñu joxe wut soldat mu ne nag sëñ bi du joxe kon nun ñii noo war a joxe bi ci des mhm. dama gis les intellectuels murit fet kenn ku ne ñu ne sëñ Touba xafawtu mhm. an ila daa yi turan li wàcc man dafa jégaloon tubaab bi ñu dévaluer franc français bi sëñ bi daf leen a dimbali mhm. jox leen cinq cent mille ma jële ci Cheikh Abdoul Khoudous Mbacké di way juru sëriñu Baye Omar mii borom daf daan def màggalug daaru buy discours ni wax ci sa waajur de dafa bokkul ci ak nité waaye ku woo ay nit bañ ñëw nga war leen wax ca la nga leen di wooyee màggalu mhm. 86 ca la doon waxee ni mhm. Sëriñ Tuubaa nee na Ceerno day jonge njëkk a fëx moo tax mu ne su mhm. mooy fotu course wa dàq daw mu ne nag fosu course yi dàq bu njëkkee départ gars yi Ceerno day jonge ju njëkk a fëx ca la doon waxee it ni bi sëñ bi nekkee ci géej gi dendandoo yi mu bàyyi woon am na kuñ ci bëggoon a jox borom lu moxti mu mhm. gàntal ñu dem ba ni ko mhm. sëriñ bee ko diglee mhm. mu ni leen bu ko sëriñ bi diglee defuma ko nee na bi sëriñ bi ñibbisee daf ko ni ceerno loolu de boo ko defoon da nga ma bett lool ko ceerno loolu day bu amoon dana am lu rëy lu yàqu loo xamante ni bi kenn mësu koo defar Cheikh Abdou Khoudous nee na tubaab yi ñoo ñëw njaareem am ñu ñoo sëñ bi danoo soxla téeméeri junni cinq cent mille sëñ tubaab ni leen loolu de du la du lañ ma wax waaye nee na tubaab am na ñu ñu àndal ndax tubaab yi. lu ma sa fanaan lu ma sa yendu kër gu mag bu ngoonee mu dem ci ci ci commandant. nee na ñoo nekk ci bi di wax di wax ba sëñ bi ne leen kon dem leen ci biir kër gi bu ngeen demee ngeen wañal leen téeméeri junni. pour nit ñi xam ni Serigne Touba jëlutub xaalisam. di ko dimbalee tubaab yi. j'ai les documents. c'est très important loolu. dama ni dama li ci tubaab yi bind. contribution volontaire la woon. waaw waaw waaw Cheikh Abdou Khoudoss nee na. ñooñu ñooy wax ba sëñ bi ne leen. Mhm. dem leen ci biir kër gi bu ngeen demee ngeen wàññal leen téeméeri junni mm-hmm. ba ñu ko wàññee ba ñu dem mm-hmm. bi sëñ bi ñëwee ci biir kër gi daf leen ni mm-hmm. lii de du lañ ma waxoon waaye ñi waroon a fexe ba du am ñoo wax ba mu am waaye lii de bu ko cernu fekke woon du am kon cinq cent mille yooyee ay pexe la waaye du Sëriñ Tuubaa moo jël euh, euh, euh, alalam ñëw di ko jox tubaab yi loolu laa doon wax